ku demul doo gor ku demul doo gor waxuñu yokkum courant bi de waaye koo xam ne dafa ba lépp si àdduna pour xeexal askanam muy Guy Marius Sagna Guy Marius Sagna du yoon ñu ko féetee man courant laa wax courant nag moom Sénégal bu la neexee ñu tëdd fa maanaam ah, li ma lay wax ah, Guy Marius Sagna il ne travaille pas pour les Sénégalais il travaille pour Sénégal bi nga xam ne moom la ñu bokk moo tax nit kooku noonu du yoon ñu ko fa ba bis boo xam ne Guy Marius Sagna moo ngi si kaso bi wala bis boo xam ne moo ngi fa loolu baaxul si démocratie Sénégal ndaxte lu tax ñu koy wax nous allons vers des élections en 2024 te it ah, foofu dama fay dugg ndaxte nee na du ma wax oui duma wax non am na loo xam ne ñoo ngi ko commencé nguuru Sénégal dañuy publicité indo di teg ka ba te suñ ko bayoo dëgg-dëgg fa ñu jëm du neex moo tax ñuy woo ñëpp man waxuma si wàllum courant bi mais Guy Marius Sagna waratul toog benn bis si kaso bi. tey Oh, ku deemul doo góor oh, moom mooy kàddu mujj gi ay ah, di jaajëfal bu baax a baax sant alhamdulilah